sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa xayri xadimihi wa man tabia hudaahum bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci nuyoob lislaam boobu di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellu siwaat nañ ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne waa daayira Muxaddamatul Xidma ñoo koy amal ci ngoonu koor gu nekk fii ci jumaay Touba di ci jël ay bind yu fasantikoo ak ay waxtaan yu am solo yoo xam ne danañu jariñ ci dund gi ñu nekk waaye itam danañu jariñ ca dund gee ñu jëm muy dund àllaaxira ñu koy ànd ak boroomi xam-xam yoo xam ne ñuñ wóolu seen xam-xam lañ ñuñ saytu seen xam-xam lañ ba xam ne mën nañ taxawee lu mel nii tey ji nag tomb bi ñu jël mooy addawair al muridiya wa taxadiyaat muy daayiray murid yi seeni taxawaay ak seeni dëkk muy défi yi nga xam ne moo taxaw ci seen kanam taxawaay yi nga xam ne moom la daayira murid yi am ak yi taxaw seeni kanam ngir gàllankoor leen ak lépp loo xamante ne bii noonu la day yi di doxe ki ñu war a defal waxtaan wi nag di sëriñ Sam Bousso Abdourahman duy jar ñu di ko guddal ci di ko xamle ndax jàpp naa ne ñëw na fi ci jataay bi indi woon fi beneen tomb tey ji itam mu ñëwaat fi fas yéene nafar ak ñun ci tomb boobu nga xam ne moom lañ tudd léegi ci biir waxtaan wi nag dana xamle eh, daayira ak sosoom ak ni muy doxe ak xeeti daayira yi nga xam ne moo am dana ci teg itam taxawaay yi nga xam ne moom la daayira am bu pare nag mujje défi yi nga xam ne moo taxaw ngir gàllankoor daayira yi ku ne xam na ne daayira dafa doon lu am solo ci muruj gi ñu ne doon na lu am solo feneen waaye murit gi rawatina ndax mën nañ ne boo xoolee fii ñu toll fi jamono toll ci yoon wi day mel ne boo xoolee symbole yu mag yi ak lu ñu fi def ci yoon wi rek daayira yi am nañ ci solo lool moo xam ci biir réew mi lañ nekk walla ci bitim réew moo xam ci biir dëkk bi lañ nekk wala biti dëkk bi waaye lu mën a xew rek daayira moom lu amal yoon wi njariñ la lu amal yoon wi solo la kon bind la boo xam ne warees na ko nafar warees naa bàyyi xel ci li ni ko sëriñ bi di jàngate ñu koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex ba lim fiy wax suñu borom defal ñu tawféex ñu nit mu doon loo xamante ne bi dina dugg ci suñuy nopp te njariñoo ko kon xam naa dañuy bañ a guddal dañuy jox sëriñ Sam kàddu gi mu dugg ci biir waxtaan wi kon sëriñ bi bismillah auzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain assalaamu aleykum bokk yi yi teew ci jotaay bi ak ñi koy topp fu ñu mën a nekk ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu nekk di ñaan suñu boroom subhanahu mu nangul ñu ci suñuy jaamu yàlla jéggal ñu ci suñuy bàkkaar di ñaanal suñu kilifa muy Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ziyaare di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te yokk ak wéram ñuy dellusiwaat di sant suñ boroom subhanahu wa taala ci tawfiq jim ñu defal ba ñu bokk ci liggéey bi am solo bi nga xam ne moom la mu Muxaddamatul Xidma di taxawee suñu boroom kàttanal ñu ñu seqoon fi ay jotaay tey ñuy seqaat ab jotaay di ko ñaan mu defal ñu ci tawfiq ca nangu nu ko sëriñ Asan leeral na tomb bi ñu war a waxtaane tey mu jëm ci daayira yi muy tomb bu am solo nag ndax ni mu ko waxe daayira dafa doon lu am wàccuwaay ci yoonu morit doon loo xam ne lu am teewaay la lu tasaaroo la jàpp naa ne waxtu wi nuy wax néew na ab morit buy dox te bokkul ci ab daayira néew na koo xam ne ab morit la te amul benn daayira bu mbokk loolu bu amee it bariwut mu mel ne daayira dafa mujj bokk ci tabaxiinu yoonu murit ni yoonu murit tëdde daayira def cee bokk ndax sëriñ bi ni mu tabaxe yoon wi nga xam ne day am ay kilifa yoo xam ne day am ñu leen di topp ñu leen di yar di leen defar am ay daara yoo xam ne ay defarukaay la waaye noonu la daayira ñëwee bokk ci jumtukaayu yoon wi daayira yooyu nag doon loo xam ne lu am taxawaay la suñu asan juñu na ko léegi kon nu war a waxtaane taxawaay yi daayira war a waxtaane li nga xam ne moo taxaw ci kanamam mu war a fexe ba jéggi ko ba mën a taxaw taxawaay yooyu dañoo toll jamono joo xam ne dañoo soxla daayira yi naka jekk dañ leen a soxla waaye lu jamono yi gën a dem aajo yi gën a bari seen taxawaay ñu gën koo soxla moo tax waxtaane ko doon lu am solo lool ci fii jamono ji ñu toll ngir nu gën a xam taxawaayam gën a xam naka lañ koy saytoo gën a xam naka lañuy def ba lim war a taxawe lépp mu mën koo taxawe kon ni mu ko waxee dañ koy tënk rekk ci ñetti tomb yoo xam ne ci lañuy bëgg a tënk waxtaan wi ci kem li nga xam ne moom lañ ci waxtu wi may te mooy ñu dellusiwaat fàttali ab fàttali lay doon ci ñi xamul daayira dañuy jekk-jekki rek màgg juddu fekk fi ay daayira waaye fu daayira jóge ak nu mu sosoo ak naka la évoluer ba agsi fii mu agsi loolu ak yan xeeti catégorie naka lañ mën a catégoriser daayira yi maanaam yan xeeti daayira moo am loolu yi danañ ci jéem a indi as lëf mu doon loo xam ne ab fàttali lay doon doog ñëw nag ci dëgg-dëgg yi taxawaay yi nga xam ne daayira am na ko loolu buñ ci jógee nag doog a ñëw ci défi yi nga xam ne moo nekk ci kanam daayira kon bu ñëwee ci sosug daayira dañuy xamle rekk ne ku xool yoon wi ni mu tëddee ni mu tabaxoo ak sëriñ bi li mu jàngale da ngay xam ne dayre am na ci palaas ndax sëriñ bi dafa tabax yoon wi ci liggéey rawatina liggéeyu mbooloo waaw mbooloo mu ànd di liggéey loolu dafa bokk ci li nga xam ne sëriñ bi daf ñu ko jàngal loolu da cee yar taalibe yi da koo bind waaye nos yoon wi ci anam goo xam ne it mbooloo mu ànd di liggéey dafa bokk ci li nga xam ne da koo da da cee tabax yoonu murit bu ñu xoolee ci ay mbindam dañuy gis fu bari muy tudd di ñaan yàlla boole kook mbooloo yuy liggéey mbooloo muy liggéey di ñaan yàlla boole koog mbooloo muy jaamu yàlla kon lu ne rek daa bëgg muy mbooloo bu ab bu dee ab liggéey na ko mbooloo di def bu dee jaamu yàlla na ko mbooloo di def loolu gis nañ ko ci ay bindam mu wax ne ci biir ay mbindam bokk na ci sax li nga xam ne am murit da koo aajowoo muy ay àndandoo yoo xam ne ñoo bokk jubluwaay bokk yitte mën a ànd dimbalante ci yoonu yàlla ba mën a àgg fañ jëm kon loolu lépp ay laltaay la yuy wane ne sëriñ bi dafa tabax yoon wi ci mbooloo yuy ànd di liggéey te ku ne xam ne loolu moo lal daayira ci boppam bu ñu seetloo ci ay mbindam am na fu muy ñaan yàlla ci genn xasida di ñaan suñu borom ne ko gi nang ma ci defal ci araf wu nekk mbooloo muy liggéey jamaatan mu wax ne waliyahab xarfin minha jamaatan xaadimatan wa sunha foofu dafay ñaan ci araf bu nekk ci xasida gi suñ boroom defal ko ca mbooloo moo xam ne day liggéey waaye muy ñaanaat mbooloo moo xam ne dañuy sax saxal julli juróom fii ci ci dëkkam bi wal fii fiihi jamaatan tuqiim alsalawaati alxamsa da ban yaa kiim yooyu kon gis nañ muy ñaan mbooloo muy liggéey waaye di ñaan mbooloo muy jaamu yàlla kon day mel ne yooyu lu ci kenn di def mbooloo defandoo ko mooy la ca gën gis nañ bu dee julli gi sax xam ngeen ne julli fas kenn li ko julli mbooloo ëppee bari na lool kon lu ànd di liggéey gis nañ bu dee liggéey liggéey la mboolooy def li wala fi wax ñaara man kenn kon lu lu kenn di def mu am njariñ bu ko mboolee mbooloo àndee ci lay gën a am njariñ kon ci lay waxee ne sax ne bokk na ci lawaasim yi nga xam ne ku jëm ci yàlla soxlawoo nga ko mooy ay àndandoo loolu boo demee ba ca xuqal bukaaw ma ngi ko cay wax ne wa rufqatun wa hiya asxaabun lahum himamun ma al wafaa'i bi sidqin fi l uxuwaati nga xam ne bayit woowu mi ngi ci jàngalewaale naka lañu war a ànde ak mbooloo bu dee ànd ci yan cëslaay la seenub ànd di tege dana tege ci ñu bokk jubluwaay bokk yitte ndax ñu bokkul jubluwaay bokkuñu yitte dina jafe seenub ànd mel ni mu war a mel waaye it bu ñu àndee fokk ñu teg ko ci dëggal kenn ku nekk ànd ak sa moroom ci dëgg mbokkoo gi ngay mbokkook moom dëggu ci yow waaye kenn ku nekk engagement ya ngay jël nga respecté ko moo tax mu wax ne maal wafaa'i bi sidqin fil uxuwaati loolu kon ci mbindi sëriñ bi rekk dañuy wan mbooloo mu ànd di liggéey ak mbooloo mu ànd di jaamu yàlla ak mbooloo mu ànd di dimbalante solo si nga xam ne am na ko waaye nga ñëw ci ni mu doon yare di samp ay daara daara ji day am mbooloo mu fa nekk mbooloo moomu day am jëwriñ walla ay jëwriñ ba lañ fay def ñu mën koo faa def ci anam gu nosu muy seexal ñoo xam ne da leen a defar ba noppi boole leen ak mbooloo ñoom it ñu ànd di defar mbooloo moom nga xam ne foo gisee rek sëriñ bi lim lim tabax da koo tabax ci mbooloo mu ànd ba noppi am ku leen yilif di leen teg ci aw yoon daana mën nga ne loolu mooy philosophie bi nga xam ne moo lal yoonu murit ba nga xam ne ci lañ gis daara yi waaye ci lañ gis it fu daara am fu ay murit nekk ànd di liggéey bu kenn ku nekk di liggéeyal sa bopp it dana am liggéey boo xam ne ñoo koy bokk loolu moo indi boo demee ci dëkk barab yi nga xam ne dañ fay baye dañoo baaxoo am toolu àllarba nga xam ne waa dëkk bi yëpp am na tool buñ bokk di fa liggéey boo xam ne tool ba la cay génne day delloowaat ci liggéeyal sëriñ bi day delloowaat ci projet yi nga xam ne moom la yoon wi taxawal ñu war koo sottal kon liggéey booba di ca dem ñu di ko jox kilifa yi di ko jox ki fi nekkal sëriñ bi kon loolu toolu àllarba kon mu ngi juddoo ci ànd wara ànd di liggéey ci xidma bi la dugg kon ci cadre boobu mën nañoo wax ne ci la daayira soqeekoo ci la daayira sosoo moom it mu doon mbooloo moo xam ne dañoo war a ànd di liggéey kon bu ñu seetloo bi nga xamee ne ñu bari ci murit yi tàmbali nañoo dem ci taax yi yoonu murit tasaaroo ci taax yi ca bu dee ci taax yi noonu ñu mënoon ànd di bay toolu àllarba di ko jox sëriñ bi bu dee taax yi amuñu fa ay tool foofa la fay seen tool mooy liggéey bañ fay liggéey moo xam ci wàllu commerce lañ nekk wala dañuy liggéey ci wàllu industrie lañ nekk waaye fu ñu mën a nekk am na lañuy liggéey loo xam ne dañ ko cay jële ñi nga xamee ne ña nekk ca tool ya di bay am na lu ñuy jëlee ca mbay ma murid yi gis ne war nañoo wéyal liggéey ba nga xam ne moom la ñuy liggéeyal sëriñ bi ci lañ sose ay daayira yoo xam ne dañ ci daan dajale seeni addiya di ci dajale di jàng xasida di ci dajale di ci daje di soññee ci seenug taalibe ngir mën a dund seenu murit ci taax yi comme na nga xam ne ña nekk ca daara yi tarbiya noonu lañ doon dunde seeni murit ñi nga xam ne ñëw nañ ba ci taax yi it mën a wëyal di dund seenu taalibe du dund seenu murit mu mel na kon dayre dafa sosu ngir nekk cadre cadre boo xam ne dañ ci mën a wëyal li nga xam ne mooy liggéey li ci li nga xam ne mooy defar sa ruux ndax daje yi ñuy daje di tudd yàlla daje yi ñuy daje di jàng xasida di di di durus loolu lépp luy dundal ruux la luy gën a suuxat xolub taalibe bi la waaye it seen addi yi nga xam ne dañ koy dajale nga xam ne ay bis gu nekk kenn ku nekk dajale la nga am ñu boole ko def ko ci kees bu matee lu ñu mën a yóbbu ziyaare ji ñu yóbbu ziyaare ji yóbbul ko sëriñ bi mu def ko ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu yoon wi kon noonu la daayira juddoo ci taax yi dokk cadre bu am solo boo xam ne yar mu ngi ci dañ doon dañ ci daan yar ndax dañuy daje di soññeente di fàttalente di jàngale waaye di ci defar seen ruux mooy di ci jàng xasida di zikar di tudd yàlla waaye di ci dimbalente ndax ku ne xam na ne taalibi bu mosaa dem ci dëkkub taax daayira ba ngay laajte bañ demee ba génn bitim réew it ku dem bitim réew am fay jafe-jafe wala sax boo yeggee rekk yu ci baree bari daayira ya fa ngay jaar fa lañ lay taxawoo ba ba ngay mën a am ci loo jàpp nekk noonu murit yi jiitu ci taax yi it noonu lañ doon jàppalante am solidarité bu am solo nga xam ne mën ngaa jóge ci taax yi mën ngaa jóge ci kaw dem ca taax ya doo yóbbaale dara waaye boo demee danañ la dalal danañ la dundal danañ la jàppale ba nga am loo mën a liggéeye kon gis nga daayira yi bi fi juddoo kon cadre la boo xam ne bu am solo la mu mel ni bokk na ci daayira yi njëkk a sosu ci yoon wi daayira boo xam ne mu ngi tudd diiwaanul muridiina boobu ci jamonoy Cheikh Moustapha euh, la sosu woon ci ndigalam sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma moo ko sosoon bokk na ci yi jiitu ci daayira yi ndax 1941 la daayira boobu sosu woon kon noonu la daayira yi tàmbalee sosu ci taax yi boo demee ci capital régional yépp ay Kaolack ak euh, Louga ak Kees ak Saint-Louis ak fépp foo dem léegi fekk fa daayira yu mag a mag am ay fédération yoo xam ne mooy ëmb daayira yooyu ci bu yàggoon maa ngi gis ay bëyit yoo xam ne suñu waajur suñu daamu Abdourahman moo ko defoon ci daayira yoo xam ne mooy daayira yi Kaolack ndax Kaolack dañoo siiwoon lool ci ay daayira daan def ziyaare yu mag a mag a mag am ziyaare boo xam ne euh, ma nga cay wax ne walillaahi ayna man raa misla kawlaxi dawaa iruha manzumatun xul baxin baxi mu ne maa ngi yéem ku gis maanaam daayiray kawlax da ko yéem ndax nañu nosoo danga wax eskay mu ne taraahum taraahum ababil stajaabu wa nakkasu ruus dawil baxdaai ahli tabazuqi mu ne yuriduuna zawra cheikhi ahmada fadilin bi tuuba lahum bushra fa hannihumu axi tuallimuna anna albaraya qulubuhum tamiilu ilaykum laa ilaa xayrikum taxi di wax ne daayira yooyu day dañoo nos lool nga xam ne daanaka ni ñu amee woon doole ak niñ fese woon naq daana naqari ñi nga xam ne dañoo bañoon yoon wi waaw daana naqari ñi bayoon yoon wi mu ne nag daayira yooyu seen yitte mooy dem ziyaare ji Cheikh Mouhamadul Fadil ca Touba mu ne ñooñu seen mbégte ñeel na leen kon na nga leen ndokkeel yow sama mbokk ne daayira yooyu dañuy xamal rek ne seeni xol ci sëriñ bi rek la jëm waaye jëmul feneen kon loola ab seede la ay bëyit la yoo xam ne yàgg na bi ko suñu waajur di def ci daayira yi nga xam ne ñoo nekkoon daayira yi Kawlax loola misaal la ci yeneen dëkk yi noonu la fa daayira yi meloon kon ci tënk rekk lañ doon tënk ne noonu la daayira sosoo waaye nag ku ne xam na ne dafa mujj tasaaroo lool bari lool bari ay façon lool bi ñi ngi ci doon jéem a xool ku ko doon wutal ay catégorie yan xeeti daayira moo am am naa ci lu mat juróom juróomi catégorie ci ay daayira xëy na yi ci gën yi gën a fës ci loo xam ne mënees na koo mënees na koo def ay catégorie daayira daayira catégorie bi ci njëkk moom laay lay tuddee dawaayir taqlid ya mooy daayira traditionnel nga xam ne comme mooy yii ma wax léegi nga xam ne moo sosu liggéeyam li ci ëpp mooy dajale ay addiya organiser ay jàng organise ay ziyaare ak di dimbalante ci seen biir ak di jàngale nga xam ne daayira boobu ñépp ciy bokk ku nekk ci gox bi rek jëb murit booba boo nekkee ci dëkk taax yi da am daayira daayira yu mën naa doon daayira yu mag yoo xam ne day day topp day day day indi at li muy liggéey da koy indil xilaafa gi wala am daayira yoo xam ne kër gañ bokk foofa la ñuy dellu buñ dajalee seeni addee it foofa lañ koy yóbbu xeeti daayira yooyu mën nañ koo tuddee dawaayir taqli taqlidiya nga xam ne li ëpp ci seen liggéey daal organiser ay jàng lay doon dajale ay addiya lay doon waaye nag di jàngale ci seen biir di soññeent ci seen biir organiser wu di dajale di yóbbu yóbbu seeni addiya moo xam ci xalifa bi lañ koy yóbbu wala ñu ko yóbbu ci kilifa ga nga xam ne daayira ba moom lañ topp mu am dayre yoo xam ne dafay am catégorie professionnelle wala socio professionnelle goo xam ne ñoo koy moom nga xam ne dayre kuréel la daayira kuréel am na nga xam ne mën nañoo wax daayira kuréel gi moo xam kuréelu ñuy ànd di liggéey la bokk métier wala ñu bokk xeet walla ñu bokk classe sociale sax am seen daaira bopp yooyu yëpp day fay dafa xe xe mën nañ koo dugal ci daaira fi awiya masalan da dangay gis ñu ne médecin yi am nañ daaira nga xam ne daaira médecin rek lay doon nga gis ñu ne euh, avocat yi am nañ seen daaira nga gis ñu ne ñu bokk ñu ne waa gendarmerie seen daaira douane seen daaira police seen daaira ñu ne maçon yi seen daayira mé menuisier yi seen daayira mécanicien yi seen daayira yooyu am nañuy daayira daayira boo xam ne catégorie professionnelle ñoom ñoo koy bokk gis nañ màggal gi daayira yi nga xam ne mooy daayira mécanicien yi di di di di di dépanner oto yi gratuitement di leen di leen di leen di leen euh, dimbale ci biir màggal gi nekk noonu nga gis daayira ñu ne daayira séeréer yi daayira soose yooyu yëpp am na xeeti daayira yoo xam ne bu njëkkoon ba may nekk njaareem booba séeréer yi jàng yu rëy lañ daan lañ daan organiser jàng yu mag a mag si daayira bu rëy lañ amoon booba noonu la amee woon yeneen xeet yoo xam ne dañ daan am ay daayira waaye boo xoolee xëy na li ko wutalee da bi njëkk rek mooy lii dafa am ñu ko bokk ñoo xam ne dañoo bokk ab liggéey bo wala ñu bokk métier wala ñu bokk corps buñ nekk wala ñu bokk euh, giir guñ bokk waaye jëfin yi ak doxalin yi wuute wut ak catégorie gi ma jëkkoon a wax léegi mu am beneen xeetu daayira mooy daayira kër daayira kër loolu bari na lool léegi nga xam ne waa kër sëñ diw ñoo am daayira bari nañ ngeen dégg daanaka kër yu mag yépp am nañ daayira sët ñu daayira sëti sëñ diw am ñoo xam dañ koy gën a yaatal ne daayira sëti sëñ diw ak soppey sëñ diw wala sëti sëñ diw ak taalibe yi sëñ diw nga xam ne loolu bari na lool léegi ci yoon wi kër yu mag yëpp dañuy am ay daayira léeg-léeg du am aw tur nga xam ne dañ naan daayira sët yi sëti diw rek léeg-léeg ñu wutal ko wutur boo demee kër Cheikh Mamadou Fadil am nañ xadaayiqul fadaayil boo demee kër sëñ Bàkki Bousso am nañ sullamul wusul noonu nga koy toppee kër yi bari am nañu ay daayira yoo xam ne daayira sëti sëti kër googa la mu am daayira lu ci yokk mooy daayira turandoo moom it xeeti daayira la yu bari léegi turandoo yi suñ Fallu turandoo yi sëñ Chouaïb turandoo yooyu yëpp léegi ndax macha allah da ciy am ñoo xam ne turandoo yi day yaatu lool ñooñu bu ñu àndee mbooloo mu bari lay doon loo xam ne mën nañoo def lu baree baree bari mën nañoo ànd liggéey lu baree bari moo tax façon daayira yooyu léegi moom it feeñ na ca gis nañ taxawaay yi ñuy am daayira yu li ëpp ci seen liggéey mooy bis ya nga xam ne moom la kër googa di am daanaka la ci ëpp ca taxawaay ya ñoo koy def am na sax nag daayira yu dem nag bay taxawal ay daara lu di taxawal ay jàngukaay taxawal yu baree bari ci biir kër googa ak di dundal xam-xam ci kër googa ak di sàmm ndonal kër googa loolu lu am solo la ndax bu ko kër gu nekk defee am daayira yu fa nekk di dundal kër ga di ko liggéey loola liggéeyal yoonu murit yépp lay doon ndax fi ne kër gu nekk bari na lu fa nekk ci ndono loo xam ne bu amee daayira bu fa nekk saytu ndono la saytu njàngale ma ñu gën a xam kilifa ga aw nekkinam ak dundam ndax daayira yooyu dañuy fexe waxtu wu nekk di jéema a xamle ka nga xam ne moom mooy kilifa fa maanaam mooy seen kilifa waaw mooy seen maam walla mooy seen sëriñ loolu kon xeeti daayira yoo xam ne moom it tasaaroo na lool mu am beneen xeetu daayra boo xam ne dama koy tuddee dawaayir sa yoo xam ne daayira spécialisé yoo xam ne moom nekkul daayira taqalidiya boo xam ne day yi ma njëkk a wax nekkul daayira yoo xam ne aw xeet wala ay catégorie sociale ñoo ko créé nekkul waaye daayira yoo xam ne dafa am fonction bu ko tax a jóg nga xam ne ñoom dañoo spécialisé wu ci ay domaine loolu léegi bari na loolu mën naa cee tudd lu mel ni muxaddamatul xidma gi nga xam ne daayir la boo xam ne li ko sax mooy liggéeyal taxawu jumaay Tuuba ak li ci aju loolu nga xam ne dafa jóg spécial ngir am lu ko tax a jóg loolu am na léegi bari na daayira muxaddamatul xidma bi ko suñu saaliwu di sos ngir taxawu jumaa ji saytu jumaa ji setal jumaa ji organiser jumaa ji lu jiitu daayira muxaddamatul xidma di taxaw ku ko xamoon ak xam ginnaaw bi daayira muxaddamatul taxawee nit jumaa ji di doxe danga xam ne liggéey bu rëy def nañ ko ñu dem ba seen liggéey ñu gën koo yaatal boole ci armeel yeeg yeneen yoo xam ne maanaam am na waaw ay ay taxawaay yoo xam ne génn na jumaay Tuubaa di di di nga xam ne taxawu jumaay Tuubaa ak dundal ko ak li nga xam ne moom la jumaa war a taxawee ci wàllu nekk di jàngale ak di yare ak di defare loolu gis nga taxawaay bi nga xam ne ñi ngi ko ciy taxaw ci daayira yi mën naa tudd lu mel ne raw rawdu rayaxiin nga xam ne moom it la ko taxoon a jóg mooy ca cosaan la mooy gani màggal gi naka lañuy def ba teral leen ci ndabi xam-xam tasaare jàngaleem sëriñ bi gën a dëgëral mbokkook jullit yi loolu kon bokk na ci li nga xam ne moom tasaare njàngaleem sëriñ bi moo ko taxoon a jóg am na lu daayira beneen boo xam ne ñi ngi koy tuddee al jabhatul muridiya nga xam ne daanaka lu ci ay ingénieur ak ay ay boroomi xam-xam yoo xam ne lépp loo xam ne yoon wi am na ko ci ay chantier xilaafa gi di ko taxawal ñoom wàllu googu mën nañ koo saytu di ko taxaw di ko contrôler di ca maanaam indi seen expertise ak seen xam ci chantier yi nga xam ne yoon wi am na ko am na yeneen am na daayira boo xam ne ñu ngi koy tuddee ak taliatul muridiya nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy boroom alal yi wala homme d'affaires yi loolu bi nga xamee ne yàlla dogal na Cheikh Mouhamadou Mountakha woote liggéeyam bi ñoom ci lañ daje woon sàkku ci sëñ bi mu jox leen ab cër boo xam ne dañ koy liggéey ci biir mu jammaa bi mooy daara ji Cheikh Mouhamadou Mountakha di taxawal ñu laaj sàkku ci moom mu jox leen li jëm ci daara yi alxuraan ji nga xam ne ñi ngi ko doon nattale ci juróom benn ñoom ñoo ànd booloo dajale biñ booloo nag lañ far ànd yëg ne war nañoo mën a taxawal dara daal di doon ab daayira sëriñ bi jox leen tur woowu mooy ak talia al muridiya kon loolu yit xeeti ci xeeti daayira yi la bokk am na daayira masalan lu mel ne maa ur rahmati ci xeet woowu la bokk nga xam di ko taxoon a jóg mooy ndoxum Tuubaa rek moom saytu ba fexe ba nit ñi di am ndox mu ñu naan yooyu ay misaal la ci yenn daayira yoo xam ne dañoo juddu ngir domaine benn domaine boo xam ne ca la ñuy ca la ñuy yëngutu waaw mu am daayira yoo xam ne moom dañoo judd ngir ngir ngir domaine waaye ngir ab ab ab xew-xew am na daayira yoo xam ne la leen judd la leen judd la leen taxawal mooy taxaw ab xew-xew lu mel ni daayira ràkkay ndar yi ñaari ràkkay ndar yi am na daayira boo demee ñaar rakkay julli géej gi am na daayira maanaam daayira yoo xam ne dafa am xew-xew boo xam ne moom la ñuy organiser at mu jot daayira ba nga xam ne loolu moo ko tax a moo ko tax a jóg kon xeeti daayira yi yu bari la am na nag yoo xam ne mën nañ koo tuddee euh, multifonctionnel nga xam ne yee moom spécialisé la waaye am na yoo xam ne moom mu mu mutaaddidul mutaaddidatul wazaif la ba daayira boo xam ne day yëngutu ci yu baree baree baree baree bari yooyu moom it bari na lool masalan ku xool daayira bu mel ne xisbu eh, tarqiya nga xam ne cocosaan ci daayira fi ala fi awiyee la bokkoon maanaam catégorie ndax ba muy cosaan ay étudiant daayira étudiant la tuddoon la doonoon waaye bi màggee ba màgg seen mbir wees na léegi mbirum daayira étudiant waaye lu baree bari ñi ngi koy liggéey ci yoon wi ci anam yu wuute dana am yeneen yoo xam ne dinañ leen tudd ci kanam ci buñ demee bay wax ci mission yi nga xam ne moom la daayira taxawe te mooy ñaareelu tomb bi ci ci waxtaan wi kon euh, ñaareelu tomb bi waxtaan ginnaaw bi ñu xamlee ni daayira soso ak ni mu évoluer ak xeeti catégorie yi nga xam ne mën nañ koo tudd ci xeeti dayra te yooyu yëpp du yu am solo nga xam ne li muy wane rek mooy complémentarité maanaam fenn fu nekk daayira yëpp man bu ci nekk day mottali moroom ja ndax yëpp dañuy liggéeyal yoon wi yëpp dañuy liggéeyal euh, taalibe yi loolu waaye ñu xam ne rek moo tax nga gis ku mën a bokk ci daayira yu bari ndax day bokk ci daayira bi ci qualité bi waaw daayira bokk na ci baay bi ndax daayira sët la mu bokk ca bokk ci beneen daayira ndax daayira booba mu ma dal xaddamatul ma la masalan am na lu ñuy liggéey bokk ci beneen daayira kon nit ki day bokk ci yu bari ndax fon fonction daayira yi dafa day wuute léeg-léeg su fekkoon ne lépp day benn boo xasee bokk ci benn rek mu doy waaye dangay bokk ci bii ci qualité sàngam bokk ci beneen ci beneen qualité bokk ci beneen ci beneen qualité kon bu ñëwee ci mission daayira nag moom xaw naa ko junju ci bi may wax ni daayira sosoo waaw xamle ne daayira cadre la rek lil xidma maanaam itaarun lil xidma waaw cadre la pour ñu ji ñu di ci mën a liggéeyal sëriñ bi waaye nag dafa am ay fonction yu baree bari yoo xam ne da koy taxawi loo xam ne weesu na rek léegi euh, jàng xasida dajale addiya waaye am na taxawaay yu am solo bu ñu demee ci sëñ Maam Moor euh, xafisahullahu taala sëñ Maam Moor am na euh, benn téere bu mu bind di ca xamle daayira boo xam da ko bind ci mbirum daayira yi rek aw seeni dox yi nag yooyu muy téere bu am solo euh, ñi ngi ko móol 2006 ba mu fay xamle daayira da caa wax ne ad daairatu fi l muridi tanzimun diiniyun fi lmaqaami al awal illa ann altaabaca al ijtimaciya wal iqtisaadiya huma alladaani yasbigaani alcalaaqaati aljaariyata bayna afraadiha fi itaari garsi ruuxi altadaamuni waltacaawuni walmahabati wifqa altaalimi alislaamiyati nabila loolu sëñ Maam Mor Mbàkke moo ko wax ci daayira mooy lan waaye ci biir xamle boobu muy xamle daayira dafa wax ne cosaan li masalan mbirum diine rek la woon masalan xëy na mbirum jàng xasida mbirum dajale mbirum jàngal nit ñi mbirum lu mel noonu ak xidma waaye nee na dafa mujj am nag ay taxawaay ci wàllu économie ci wàllu social daayira yi dafa am rôle économie ak rôle social yoo xam ne daanaka mën nga ne moo lal jëf leen tëb ñi nga xam ne ñoo bokk ci daayira bi waaye loolu lépp nag jubluwaay ba rek mooy gën a suuxat lii di solidarité lii di dimbalante lii di jàppalante lii di bëggante ci biir taalibe yi ca loolu yépp dafa dëppook li nga xam ne mooy njàngaleem lislaam kon loolu daf ciy junju yi nga xam ne daayira dina ko taxawee kon buñ ko bëggoon a résumer mooy yoo xam ne mën nañ ne fonction daayira mooy yii donte nag daayira bu daayira yi am nañ ay spécialité loolu dinañ ci ñëw ci kanam ñoo xam ne danañ def yii waaye am foo xam ne dañ fay ñoom dañ koy jagoo li nga xam ne taxawaayu daayir la mission daayir la ca mu doon lu ma lu mat di fàttali xam nga xam ne ñi bokk ci daayira xam ne seen daayira lii bokk na ci seeni mission bokk na ca mooy daayira jumtukaayu yar la jumtukaayu defar la jumtukaayu tazkiya la maanaam defar ruuxu taalibe bi daayira nit ku ci nekk sa pas-pas ak sa ruux sa sa sa sa xol dafa war a gën a sell waaw sa xol dafa gën a gën a sell da ngaa war a gën a amuk taalibe da ngaa war a gën a jub da ngaa war a gën a baax kon daayira itaar la buy defar nekkul barab boo xam ne rek danga fay ñëw daje waxtaan joxe mu jeex waaye dafa doon loo xam ne dañ faa war a yokkoo dañ fa war a dolli ko kon daayira am na mission tarbiya ak encadrement maanaam encadrer nit ñi ci yar leen ndax dajay durus xasida yi ñuy def ak jàngum xasida mi ñuy def loolu lépp defuñu ko ngir day mu neex rek waaye loolu day defar ruux ku ne xam ne ne xasida njàngum xasida day defar day defar ruux loolu Sëriñ Tuubaa bind na ko fu baree bari ne maanaam mbindam mi day sellal ruuxuk nit da koy yéegal jëme ko ci si baraam xatti yuusilu murida lillah bi xeyri xalwatin wa yakfi kulla la wax wax na feneen ne sama mbind mi dafay taxaw taxawaayu kuy yare kon moo boo gisee daayira war a fonk njàngum xasida mooy daayira dafa war a nekk jumtukaay pour yar nit ki pour defar ruuxam pour sellal ruuxam kon njàngum xasida mi ñuy def day dugg ci cadre boobu njàngale mi ñuy jàngale ci biir daayira yi ndax am na daayira yoo xam ne ña ca bokk dañ leen di jàngal di leen jàngal seen diine di leen jàngal seen ni ñuy àttey jaamu yàlla jàngal leen pas-pas loolu lépp daayira yi rawatina ci taax yi daayira yi dañoo amoon taxawaay yu mel noonu te war koy am ba tey waaye am na daayira yoo xam ne weesu nañ sax di jàng xasida ak di jàngal nit ñi waaye dañoo far taxawal ay jàngukaay am na daayira yoo xam ne dañoo taxawal ay jàngukaay ay mu muassasaat tarbawiya ay daara di yar nit ñi di fa jàngal nit ñi ña bokk ca daayira ba ak même sax doomi jullit yi ñu leen di taxawu ñu mën a jàng loolu mission bu am solo la àgg nañ ci bokk na ci li ñuy mën a jaare ba di yar nit ñi di leen xamal mooy di amal ay sit internet am na daayira yoo xam ne ñu am site yoo xam ne dañ cay dugal ay téere majaalis yi téere sëñ Abdourahmaan yi ngir nit ñi di ci mën a jànge loolu lépp liggéeyu daayira la yoo xam ne daayira yaa ngi koy taxawee kon boobu mission ci mission daayira yu am solo la bopp ñaareelu mission ci mission daayira yi mooy li ñuy wax solidarité fexe ba créer ak dimbalante ak jàppalante ci diggante ñi nga xam ne ñoo bokk daayira bi ña nga xam ne dañoo aajowoo ñu ñi nga xam ne dañ leen di daayira yu bari dañuy am kees kees kees goo xam ne bokkut ak li ñuy yóbbu di ko ziyaare waaye kees la goo xam ne ñi am jafe-jafe ci biir daayira bi dañ leen ciy jàppale waaw bari na daayira yoo xam ne ci biir taax yi nit bu mosaa ñëw jóge ca kaw amul fu mu dekk daayira bi ñoo koy wutal fu mu dal ñoo koy wutal jox lu muy dunde ba ba ba muy mën a am fu mën a jëm loolu ci wàllu solidarité la bokk même am na daayira yoo xam ne àgg nañ ci ci biir waa daayira bi di liggéey ku ci soxla am na keneen koo xam ne day def loola dangay ngay daal di dem bu dee looy jënd nga jënd ko ci moom bu dee looy liggéeylu nga liggéeyloo ko koo xam ne mu ngi ci biir daayira bi ca man liggéey booba loola ci wàllu dimbalante la dugg ca loolu daayira yi dañ koy taxawe waaye daayira yi dañuy am taxawaay bu am solo it ci sàmm ndonol sëriñ bi maanaam yoonu murit seen ndono mooy patrimoine yoonu murit ci sàmm ko ci tasaare ko ci yaatal ko loolu daayira yi am nañ ci ay taxawaay ndax bari na daayira yoo xam dañuy génne ay téere di génne ay téere di organise ay euh, exposition ngir di ci xamle sëriñ bi gis nga màggal bu ñëwee taxawaay yooyu da ciy am ak di organiser ay journée culturelle loolu même boo demee ci daayira yi ci bitim réew loolu am nañ ci taxawaay bu am solo bu ràññeeku kon sàmm ndonol sëriñ bi ak dundal ko ak tasaare ko mooy am njàngleem loolu ci taxawaay yi daayira la bokk ci ay mission daayira la bokk waaye fexe ba lii di développement social ak économique maanaam nit ñi amuk yokkute ci wàllu seenu nekkin ci wàllu koom-koom ci amal ay projet yu am solo loolu gis nañ mu bokk ci mission yi daayira ba nañoo tudd euh, lu mel ne bul Matlaboul ni hôpital bii mu defar xam nga ne lu am solo la ci nit ñi lu am njariñ ci nit ñi la ca loolu daayira ñoo ko def yaakaar naa missaal yi gën a jege ku xool mu xaddama euh, Touba ca kanam taxawaay yi nga xam ne am nañ ko ci biir Touba ci wàllu développement ci wàllu leeral dëkk bi ci wàllu assainissement ci wàllu defar ay yoon gis nga loolu kon ci lu am solo la daayira di ko taxawe ndax dañoo tollu jamono joo xam ne ci àdduna bépp société yépp mën nga ne dañoo soxla ñu am ci biir société bi ñu taxaw di liggéeyal société bi ndax amul fenn foo xam ne daanaka wala néew na foo xam ne état yi mën nañoo def lépp état yu baree bari day am luñ man mais am luñ mënut mooy fekk mu am ay kuréel yoo xam ne ñoom it dañuy taxaw di taxawu askan wi di dimbale ñi néew doole loolu nag daayira yi am nañ ci taxawaay bu am solo mu bokk ci mission yi daayira bi lii nga xam ne ku ne xam ne ne yoon wi li muy sottal lépp ci ma la koy sottal maanaam mooy bañ ba mu tàmbalee ci jumaay njaareem ba ci mujamma bii ak lépp loo xam ne yoon wi taxawal na ko ci xitma la ko taxawale ci nit ñi di liggéey di joxe ci la ko taxawale loolu nag ku ne xam ne daayira yi am nañ ci taxawaay bu am solo ci li ñuy dajale ci biir seeni membre lum mu tuuti tuuti ñu da ko dajale mu doon ca bu ñu baree bu baree mu daal di doon lim yu am solo ñu di ko yóbbu ci di ko jox ki nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba mu di ko def ci liggéeyu yoon wi loolu taxawaay bu am solo la ci daayira ji daayira ji taxawoo mooy kon lu wàllu tamwil lu wàllu financé li nga xam ne mooy projet yoon wi loolu ku ne xam na ne taxawaayu daayira yi am na ci solo lool waaye kon ku ko doon yo bari na waaye yooyu moo ci gën a fés comme lu jëm ci wàllu xam-xam ak defare ak yare lu jëm ci wàllu tasaare njàngaleem sëriñ bi lu jëm ci wàllu développement lu jëm ci wàllu solidarité lu jëm ci wàllu financé li nga xam ne mooy projet yoon yi loolu yëpp ay taxawaay la waaye dayre yi dañoo taxaw ci lépp loo xam ne ki fi toogal sëriñ bi bëgg na ko daayira yëpp futtiku bu fekkee ne koo def loob dayre daayira boobu taxaw def ko bu ko bu ko boolee ay dayre dayre yu ànd def ko bu bu ko wootee daayira bu nekk def ci la nga man loolu gis nañ daayira yi saabu ab liggéey taxawee taxawaay ya nga xam ne dañ ko cay am kon loolu euh, lenn la ci mission yi daayira ñu waaye bu ñu xoolee daayira yi ci bitim réew nag loolu seeni mission la waaye ñoom ñu am yeneen yu ca dolli ko waaw bokk na ca la ca dolliku mooy daayira ci biti ñi nga xam ne dañuy dugg ci yoon wi wala ñu dugg ci lislaam jaar ci diir daayira yooyu bokk na ci seen mission mooy taxawu ñooñu taxawu ñooñu jàngal leen encadrer leen ba du ñu dellu ca lañ nekkoon gën a nañ bëgg gën a bëgg lislaam gën a xemem lislaam gën a xam sëriñ bi gën a xam njàngalem sëriñ bi loolu mission bu am solo la boo xam ne ñi ko war a taxawee mooy daayira yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biti ci ko xam ne ne daayira yi niñ mel ci biir Sénégal noonu lañ mel ci bitim réew bu fekkee ne sax bitim réew gënt bari foofa daayira yi am nañ taxawaay yu am solo yu ñuy taxaw ci yii ma wax yépp ndax foofa bari na ay fédération boo demee États-Unis boo demee Europe foo dem da nga fa gis ay daayira yu am solo yu takku di fa taxawal ay kër Serigne Touba yoo xam ne këri lislaam la ndax Cheikh Mamadou Mourtada radiallahu taala anhu noonu la ko doon tudde kërug lislaam daan leen ci soññ ñu di ko taxawal waaye di fa jàngale di fa tasaare lislaam loolu nekk ay taxawaay yu ama am solo ci bitim réew bokk na ci mission yi nga xam ne daayira yi dañ ko def mooy dimbalante ci seen biir waaw dimbalante ba nga xam ne bari na koo xam ne tey ña fay nekk ba yàlla moom leen ñu bëgg ñu ñëw gis nañ am na daayira yoo xam ne ci loolu moom leen tax a jóg nga xam ne dañuy dajale nga xam ne dañuy dajale bu kenn génnee àdduna ñu fexe ba toppatoo ko taxawu ko ba ñibbisi donte ay mbokkam dañoo néew doole wala moom mu néew doole daayira yi seen mbokki taalibe ñoo leen di taxawe kon daayira yi seen mission ci biti dafa dolliku ci kër sëñ Touba ya fa nekk ni ñu ko war a taxawoo mbokki jullit yi nga xam ne dañuy ay ay dañoo nekkoon ci yeneen diine dugg ci biir lislaam jaare ko ci biir murit yi nañ leen war a taxawoo ak kër sëñ Tuubaa ya fa nekk nañ ko war a saytoo nañ ko war a dundale ci wàllu xam-xam ci wàllu euh, lépp yooyu seen taxawaay yu am solo la léegi nag xëy na loolu mooy mission yi nga xam ne moom yépp a ko bokk waaye mën nañoo joxe ay exemple ci li ma doon wax am na daayira yoo xam ne dañoo spécial spécialisé wu ci dara nga xam ne ñoom dafa am domaine boo xam ne dañuy def yii ma wax waaye am foo xam ne fa la seen liggéey gën a gën a gën a jëm yooyu mën nañ caa tudd lu mel ne xisbu tarxiya ku ne xam na ne liggéeyam ci taxawu gani màggal gi taxawu màggal gi ci animé màggal gi ci wàllu jàng ay xasida taxawul xalifa bi ay ganam loolu ñu ngi ciy taxaw taxawaay bu am solo ci wàllu tasaare njàngaleem sëriñ bi ci def ay exposition gis nañ taxawaay bu am solo boo xam ne ñi ngi ko ciy def ànd ak yi ma tuddoon yu ci nekk moom it ña ngi cay liggéey mooy wàllu yare bi ma doon wax wàllu solidarité bi ma doon wax wàllu développement bi ma doon wax yooyu yëpp ñang ca waaye ñu am foo xam ne nag dañ faa gën a ràññiku moom ci seen ci seen yëngutu mooy yooyu ma wax boo jógee ci Hizbut Tarqiyyah boo ñëwee ci fu mel ne lu mel ne Rawdu Rayaahiin ñoom it seen liggéey mi ngi gën a jëm ci wàllu taxawu lépp loo xam ne wàllu xam-xam la ci yoon wi maanaam lii di ndonol sëriñ bi ay taalifam ay mbindam am njàngaleem ñu di ko saytu di ko di ko génne di ko tasaare di di ci def ay waxtaan di ci organiser ay conférence di ci def ay colloque yooyu yëpp ci spécialité am la bokk màggal bi saa bu ñëwee lépp lu ci wàllu xam-xam gis nañ ni ñu ko ni ñu koy dénke lii di Rawdu Rayaahiin ci wàllu yañ cay organiser ci ay émission ay yu ni demee kon lépp luy activité scientifique ak culturelle loolu ñoom dañ caa spécialisé wu waaye it ñi bokk nañ ci seen liggéey mooy fexe ba xamal sëriñ bi ñi nga xam ne bokkuñ ci yoon wi te loolu dafa am liggéey bu am solo bu muy def mooy nit ki seenu xamante dana indi seenu mën a euh, ànd seenu mën a déggoo ba tax na màggal gi jotaay yi nga xam ne ñi ngi ko ci amal di ci woo yeneen ñoo xam ne ñi ngi jóge ci yeneen këri diine tax na ak gën a xamante am loolu bokk na ci li gën a dundal bokkook jullit ñi ak bennook jullit ñi li koy gën a suuxat ci Sénégal taxawaay yu mel noonu bokk na ci aljabha al muridiya tuddoon naa ko ñoom lépp loo xam ne aspect technique la ci wàllu projet yi nga xam ne ak sànce yi nga xam ne yoon wi mi ngi koy am ñoom dañoo jëm ci wàllu googu ndax ay ingénieurs yi ci nekk ay ay ay expert comptable ak yu demee noonu ñoo xam ne dañoo gën a jëmale seen liggéey ci taxawu yoon wi ci wàllu expertise boobu nga xam ne am nañ ko kon chantier ba boo xoolee liggéey bii di mu jammaa bi Euh, ñoom lu jëm ci wàllu contrôle ñoom lañ ko dénkoon balay ñoo koy saytu infrastructure lañ fay tabax ak yépp ak euh, entreprise ya fay tabax lépp la cay contrôle la cay saytu jëbha ya mooy daayira boobu ñoo koy taxaw ni nga xam ne ni lañ dénkee rawdu rayaaxin lépp lu jëm ci wàllu programme ya ak lañ fay jàng ak nañ koy ña fay jàngale ak lañ fa war a jàngale yu ci aju lépp ci wàllu pédagogie ak wàllu formation ñu fay def ak yooyu yëpp niñ ci responsabiliser Rawdu Rayaahiin noonu lañ ci responsabiliser ca wàllu saytu liggéeyu infrastructure yi Jabhal Mouridiyya Taliya Mouridiyya ñoom da ngay gis ne ñoom it dañoo spécialisé wu ci wàllu financement financer sànce yoon wi tàmbalee ko ci mujammaa bi kon loolu seen spécialité la ndax it kenn ku nekk fa nga mane fa nga mën a gën a liggéey boo ñëwee ci li ma ko waxoon lu mel ni mu xaddamatul xidma nga gis ñoom it ni ñu spécialisé woo ci saytu lii di jumaa ji saytu armeel yi waaye saytu ñiy jiite ci jàkka yi ñiy jiite ci jumaa ji di leen defal ay formation loolu ci seen liggéey la ba jamono yi sax la Cheikh Ahmadou Mountakha boole mu xaddamatul xidma ak rawdu rayaaxin ngir ñu taxaw lii taxawal lii di al majlisul aala li suyoonil masajid fii Touba muy conseil supérieur bi nga xam ne mooy saytu euh, jàkka yi ci jàkka yi ñu war a tax euh, euh, tabax ñooy xool ndax norme yañ ko war a tabaxee ak ndax foofa aajowoo na ko wala am na fu ko gën a woo yooyu yëpp ab liggéey la boo xam ne ak ñay nekk ci jàkka yi di fa jiiteeg di fa nodd ak formation yi ñu leen war a defal ak yooyu yëpp lu aju ci daal saytu jàkka yi ak taxawu leen am na kuréel goo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe na ci ndigal donc doro ànd ko ak Muxaddamatul Xidma taxawal ko di ko di ko di ko di ko saytu bu ñëwee ci ba tey ci spécialisation ma doon wax ay misaal rek lay joxe ndax bu nekk mënuñoo topp daayira ci yoonu yëpp kenn ku nekk ñu wax la nga la nga spécialisé woo waaye ay exemple rek lañ doon joxe exemple bi ci mujj mooy Touba ci kanam waaw Touba ci kanam moom it gis nañ ni spécialisé woo ci wàllu euh, développé dëkk bi ci wàllu saytu dëkk bi ci wàllu taxawu dëkk bi ci wàllu faj gis nañ liñ fi samp ci ay euh, ci ay centre poste de santé ak i centre de santé gis nañ yoon yi nga xam ne defar nañ ko ci assainissement jafe-jafe yi ñu doon am ak wàllu social liñ ciy def ci taxawu ñu nekk ci dëkk bi ci seen loxo jotul seen ginnaaw ba ci wàllu googu taxawaay yi ñu ci taxaw ni mu amee solo tax na sëriñ bi eh, bi mu taxawalee kër azaka yi mu dénk leen ko kër azaka yi doon kuréel koo xam ne moom it dañ ci saytu di ci dajale ay azaka di ko joxaat ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko aajowoo loolu ci li ñu dénk Tuubaa ca kanam mu mu mu ci la bokk noonu ma doon wax ne daayira bu nekk am na day am daayira yu mag yooyu sax ay misaal laa ci joxe dañuy spécialisé wu ci dara waaw gis nañu xis bu taraxee ni mu spécialisé woo ci wàllu xasida yi moom it sëriñ bi am na liggéey bu am solo boo xam ne da ko santaane wax rawdu rayaaxiin ak xis bu tarxee nañ ko ànd mooy xasida yi nga xam ne mooy xasida yi sëriñ bi dafa bëgg ñu moolaat ko mool bu yees defaat def génn ci ay diiwaan yoo xam ne dañ koy classé maanaam par baxru ñi xam genre dañu xam ne shi'rul arabi way yi dafa am ay baxar baxrul tawil baxrul basit baxru rajas sëñ bi dafa bëgg ñu boole baxru bu nekk ñu boole la ca la ca sëñ bi woy lépp def ko di ay diiwaan génne ko liggéey boobu tey ñi mi ngi ko sant Hizbut Tarqiyyah ak Rawdu Rayaahiin ñi ngi ci ànd di ko di ko di ko liggéey kon xëy na loolu doy na rek ci ay misaal ci taxawaay yi nga xam ne daayira yi am nañ ko ku ko toppoon day bari boo xoolee mën ngaa tudd daayira bi may wax daayira kuréel yi yi nga xam ne kuréel la daayira turandoo yi mënoon nañ cee tudd lu mel ne daayira maam jaare yi gis nañ taxawaay bi ñuy taxaw ci daaray maam jaare ji ak poroxaan taxawaay yañ fay taxaw muy yu ama ama am solo ci daayira euh, kuréel yooyu boo xoolee même am na daayira yoo xam ne dañoo spécialisé wu ci setal ne asxaabul janna nga xam ne tey alxames ju nekk boo ñëwee fii da nga fi gis ay mag ay soxna yu mag di di di laxasaayu di setal jumaa ji ak li wër jumaa ji yooyu waxi daayira la boo xam ne loolu mooy seen liggéey loolu kon ay misaal lañ doon joxe ci xeeti xeeti xeeti daayira yi kon ma ñëw ci tomb bu nga xam ne mooy tomb bu mujj bi jëm ci wàllu nag li ñuy wax ay défi bu ñu waxee défi it mooy li nga xam ne dëgg-dëgg dafa taxaw ci kanam daayira yi ñu war a fexe ba jéggi ko ngir seen taxawaay gën a mën a yaatu gën a mën a jariñ gën a mën a am solo waaw ndax ku ne xam ne ni taxawaay yi ñuy taxaw am na solo lool waaye nag am na yoo xam ne buñ ci bàyyee xel dina tax taxawaay yooyu gën a yaatu taxawaay yooyu gën a am solo gën a rëy te loolu ay défi ci wàllu mën naa ko tuddee wàllu jubluwaay ak i stratégie yi nga xam ne moom lañuy teg muy yoon wi ñuy xàll war caa jaar yooyu war nañ koy xoolaat war nañ koy xoolaat ñaareel ba mooy wàllu organisation ni ñuy organiser daayira yi ak ni ñu koy nose loolu it am na ci ay défis yoo xam ne fokk ñu xoolaat ko gën koo baaxal am na ci loo xam ne dafay jëm ci wàllu ña cay nekk ca nit ñi muy ressources humaines yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daayira yi di fa liggéey loolu it am na lum laaj ci ay taxawaay yoo xam ne fokk ñu jéem koo buñ ko buñ ko saytoo dina gën a am njariñ lool am na ci loo xam ne ci wàllu koom-koom mii doxal daayira yi ci la aju mooy wàllu finance loolu it am na ci ay défi yoo xam ne fokk ñu xool naka la ñuy koy saytoo ba tax daayira yi gën a mën a am taxawaay bi ñu war a taxaw xëy na ba ca ba ca des rek mooy ci wàllu communication kon juróom yooyu fu ci nekk danañ xool loo xam ne daayira yi war nañ cee taxaw bu ma dee wax nag mooy damay gen ay ay généralité lay doon du ma ne daayira sàngam moo war def yi waaye damay wax li nga xam ne am na dayre bu mu fekk nga nekk ca fa lillahi alhamdu waaye daayira bu mu fekk nekkoo ja nga xool noo cay ñoo cay jéem a noo cay jéem a nekkee li may wax ci wàllu xoolaat jubluwaay dayre mooy waxtu wu nekk dayre bu nekk war nay muraajaa maanaam war nay nafar ay jubluwaayam mooy dayre buñ koy sos dañ ne dañuy sos daayira bi ngir nàngam ngir liggéeyal sëñ bi ngir def nàngam ak nàngam loolu daayira mën nay dox ba ña ca nekk ca daayre ba màgg na màgg na ba am ñu fàtte sax jubluwaay yooyu nga xam dañoo nekk ci daayira bi di yëngatu ci daayira bi rek waaye dëgg-dëgg objectif yu daayira bi xamatuñ ko loolu nag war nañ waxtu wu nekk di nafaraat objectif yu daayira yi ca objectif yooyu waxtu wu nekk dafa war a dellu ci njàngaleem sëriñ bi maanaam dafa war a dellu ci di defar ruux di yare dimbalante ak liggéeyal sëriñ bi ci anam gi nga xam ne mooy jariñ nit ñi yooyu yëpp bu fekkee ne waxtu wu nekk dañ koy war di nafar maanaam ndax programme ya ñuy nas ak la ñuy tëral yëpp dafa war a ànd ak méngoog jubluwaay yooyee daayira bi am loolu bu ñu ko du def day am ci biir ñoo xam ne dañuy dem ba jël ay détails def ko ay priorité waaw nga xam gis daayira boo xam ne la leen taxoon a jóg dem nañ ba nekk ci yeneen yoo xam ne dañ cay sonn lool te fekk te bokkutoo nag dëgg-dëgg la taxoon a jóg daayira ba loolu kon moo tax daayira yi waxtu nekk war nañuy nafaraat di muraajaawaat la leen taxa jóg waaye loolu it daayira bu koy def dana tax war ngaa am aaday di di di di di li ñuy wax di planifier maanaam di di di nas say say liggéey li nga war a def nga di ko nas man kat lii ma tax a jóg kon lan ak lan laa war di def ba jubluwaay bii ma am ma man caa yegg loolu waxtu wu nekk dañ koo war di bàyyi xel di def planification mooy wax at mu jot wala ñaari at wala ñetti at danañ daayira bi danañ toog ne suñu plan lii lañu war a def ngir kat jubluwaay yii ñu am ci suñ kanam ngir ñu mën cay àgg waxtu wu nekk fokk ñuy def lii ak lii ak lii loolu ndax jamono day soppiku mën ngaa dem ba gis ne maa ngi doon def nangam waaye su ma ci boolee nangam dina tax li ma ne woon foofu loolu moo ñu tax a jóg gën a mën a yemb gën a mën a jàppandi kon li jëm ci wàllu planification li jëm ci wàllu di def suivi boo planifié ba noppi nga di ko topp nag di saytu ndax li ma nas maa ngi ci yoon wi wala wàcc naa yoon wi te saa boo sottalee ab su ab ab ab sumb boo sumboon ab sumb boo sumb saa boo ko sottalee war nga koo natt war nga koo xayma ndax li ma taxoon a jóg na ma ko bëggee woon amee naa ko noona wala am naa ci ay jafe-jafe wala daayira bi am na ci ay manquement loola mooy tax ngay mën a avancer mooy tax say jafe yi ngay am nga di xool noo koy saafara di mën a dem loolu bu ko du def da ngay gis daayira boo xam ne day juddu am doole lool bari mbooloo lool waaye ñuy dem muy ruus muy ruus muy ruus ba ñuy jóg am yéene yu rëy am naal yu rëy nga jekk-jekk sax daayira ba dootoo ko déggati far mu far waaw loolu da loolu yëpp mooy daayira bu juddu am yéene ak xir ak pas-pas waaye amoo plan bu leer amoo fi nga jëm yoon wooy jaar boo xam ne danga ko jàngat ba xam ne lii àttan naa ko nii mën naa nee doxe loolu kon mbir la yoo xam ne faw ñu di ko bàyyi xel beneen défi bi jëm ci wàllu ressources humaines mooy mbooloo mi nga xam ne ñooy ànd ci nekk ci biir daayira bi di liggéey daayira bu nekk am na ñu ko ŋànk am na ñoo xam ne xëy na la cay seen wàll mooy buñ nee nañ jàng nañ durus ñu ñëw indi seenu dollu di durus buñ nee dañuy laaj ñu génne lañ joxe waaye ñay saytu doxiinu daayira ba suba ngoon di nos liggéey yi di ko taxawu ñooñu it dafa am loo xam ne laaj na ko bokk na ci lim laaj mooy daayira yi ñi ñuy dénk ay liggéey ñu fexe ba liggéey yi leen di dénk ñu leen cay formé waaw loolu lu am solo la ndax nit ki man nga ne kii gat moom lañ dénk lu jëm ci wàllu trésorier xam nañ ne maandu na rek ñu jo ñu dénk ko ko waaye formé wuñ ko ci ab trésorier lan mooy ay mission naka la ko la ko war liggéeyee la yan jumtukaay la war a yor wala nangam ak nangam mën nañoo fal kii ne ko yow yaa yor nàngam yaa yor culture yaa organisation lu mu mën a doon rek lu ci loo xam ne dafa laaj technique laaj xam-xam kuñ ko dénk war nañ la caa waajal su fekkee amuñu koo xam ne dañoo fekk mu xam ko ba noppi ñu dénk ko ko kon ñii liggéey ci biir daayre yi ñu leen di jox ay ay ay ay sas ci biir daayre bi sas wayu leen jox war nañ leen koy xamal war nañ leen cay waajal ndax ni ma koy faral di waxee lu ci baree bari bu ñu la ko joxee sa pas-pas nga cay demee ca sa pas-pas léegi mën nga cay demee ba far yow sax dëgg-dëgg da cay loro da nga gis kuñ dénk xaalisu daayira bi ca xamaluñ ko nu ñu yor kees mu mujj lu baree bari topp ko ca mu koy fay ci suuf ndànk bëggul kenn du ko xam nga xam ne ma ngi cay toggoo yu méttee métti ca la ko waral mooy bu ñu ko waxoon formé woon ne ko outils jumtukaay yii ngay jëfandikoo booy yor xaalis buy génn luy génn nii nga ko war a saytoo luy dugg nii nga ko war a saytoo ba loolu lépp mu leer ko bu ko defee yorin wa leer bu ko defee mu am du am benn jafe-jafe loolu nag ci suñu daayira yi lu ñu war a farataal la mooy ñi ñuy dénk ay liggéey liggéey yañ leen dénk ñu leen cay ñu leen tey formé rawatina daayira bu dem ba am ay projet yu mag a mag yooyu ni ñuy gérer projet ak ni ñu koy saytoo dañ cay war a former ña nga xam ne ñoom la ñuy dénk projet yooyu waaw bokk na ci li nga xam ne lu am solo la mooy daayira yi di am léeg-léeg màggug ak àgg foo xam ne day laaj ña ko ŋànk seen liggéey du doon dara lu may daayira bi maa mu am ñoo xam ne dañ leen di jël ngir see lë bi laaj léegi mag na mag boo xam ne neexutut a bokk ñu war a am ñoo xam ne dañ koo war a saytu war mu war a nekk seenub liggéey loola ku ne xam na ne bu amee day daal di am lu mu laaj day am lu cay war ca ka nga xam ne da koo jël liggéeyu dara lu may saytul daayira bi ay mbiram ndax ñàkk am loolu bari na ci daayira yoo xam ne jafe-jafe ya ñuy am mooy dafa am mag ñu fa nekk wala ay gone yàgg ca daayira ba liggéey ya bari ba mënatuñ koo booleeg seen liggéey seen pas-pas wala seen pësteef tax daanaka ñu bàyyi seen liggéey léegi nag fu ñuy dunde muy jafe-jafe léegi bu ñu nekkee di jéem a dund ci lay lay ñëw ca daayira ba ca nekkul lu ñu organiser léegi lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu tënk ñu ne ñoom dañuy ñooy lekk xaalisu daayira bi ñooy lekk keesu daayira bi indi ay jafe-jafe ay coow yu dul jeex fekk te dafa lu yomb la woon mooy ñii kat léegi dañoo tafaruxal daayira bi maanaam dañoo bàyyi seen lépp ngir daayira bi daayira bi war na am fu mu leen féete kon loolu it lu am solo la ci ñii liggéey ci daayira bi mu am fu ñu leen féete mu am sax léeg-léeg daayira da ngay àgg foo xam ne dafay am liggéey yoo xam ne da ngaa war a recruter koo xam ne spécialité am la mu yoral la nga xam mën naa bañ a doon sax membre daayira loolu gis nañ daayira yu mag yi ñu ngi koy def waaw daayira yu mag yi xam nañ ko dañ dañ dul bëgg di di citer mais am na daayira boo xam ne bu ñu soxlaa ingénieur dañuy jël koo xam ne dañ koy fay mu yoral leen lañ la soxla bu soxlaa comptable àgg nañ foo xam ne dañuy fay koo xam ne comptabilité la def am ci ay diplôme mu ñëw yoral leen seen comptabilité yooyu yëpp ci gën a dooleel doxiinu daayira bi lay doon waaw bokk na ci wàllu wi ñu war a bàyyi xel mooy ñi nekk ci yoon wi am ay compétence am ay xam-xam man-man bëgg nañoo liggéeyal sëñ bi mais bëggu am amuñu jotug bokk ci daayira wala mënuñoo bokk ci daayira daayira yi war nañu tëddee noo xam ne mën nañoo liggéeyloo noonu maanaam nit ki nga war koo mën a liggéeyloo mu liggéeyal daayira bi ca du bokk ci daayira bi waaw ubbi bunt yu mel noonu léeg-léeg boo amee ab liggéey boo xam ne am nañu ko man nga def appel à candidature wala appel boo xam ne ñi ko man ca bokkuñu daayira ñi ñëw jàppale la ci bu liggéey ba noppee ñu delluwaat ca seen liggéeyu bopp loolu ba tey daayira yi bunt la boo xam ne bu ñu war a mën a jëfandikoo la ca mel na ne loolu yombut daayira yi xam day tëju ku bokkul ci daayira ba doo mën a xam sax la fay xew ca biir daayira ba pour mën caa bokk ba xam noo cay ñoo cay ñoo cay jàppee kon loolu lu ñu mat a bàyyi xel la waaye ci nit ñi nekk ci daayira bi it ci formation yi ñu leen di former ñi koy ŋànk waxtu wu nekk ñu bàyyi xel la taxoon a jóg daayira mooy yar tarbiya ruuxiya dañoo xam ne dayre jumtukaayu yoonu murit la te yoonu murit la ko tax a jóg mooy defar kon ña ca nekk war nañoo fexe ba dindi ci ñoom ananiya mooy égoïsme maanaam boo gisee maanaam ak rëy nekk wala bëgg àdduna wala loolu lépp mooy kon am na lu des yar bu ñu war a yar bakkan yi yar bu ñu war a yar bakkan yi loolu léeg-léeg bu ba desee rek day feeñ ci doxalin nit ñi day feeñ ci taxawaayu nit ñi léeg-léeg bari na jafe-jafe yooyu dégg ci biir ay daayira fekk te xëy na yar bañ waroon a yar membre ya ci wàll fàttali leen ne dañoo war a defar seen ruux fàttali leen ne daayira bi cadre la boo xam ne pour defar ruux a ko tax a jóg loolu dañ koy fàtte ba muy indi yenn jikko ak yenn doxalin yoo xam ne du méngoo doxinu daayira kon loolu ci wàllu ci wàllu nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir daayira bu ñëwee nag ci wàllu euh, finance ci biir wàllu daayira maanaam aspect wàllu finance maanaam wàllu koom-koom foofu it dana laaj bu baax a baax daayira yi rawatina yi nga xam ne dañu am ay projet yu mag a mag ni nga xam ne noonu lañ baaxoo dajale koom-koom di ko di ci réaliser seeni projet war nañoo dem ba gën koo yaatu gën koo dooleel ndax jàpp naa ne am na daayira yoo xam ne mën nañoo dem bay def ay investissement ca loolu am na ci daayira yi cosaan yi ma doon wax sax am na daayira yoo xam ne ba ñuy judd loolu bokkoon na ci ba te yaakaar naa ba léegi ñu ngi koy def am na daayira yoo xam ne am na ñuy tool is bu taraxee dañ danañ danañ bay boo demee uh, itihaadu atbaal xadim amoon amoon nañ ay investissement yu ñuy def ci wàllu koom-koom wàllu yu bëree bëri yooyu lu am solo la ci daayiri fexe ba am ay source de financement yu bokkut ak addiya yi nga xam ne moom la wala barkeelu yi nga xam ne moom la ñi bokk ci daayira bi joxe wala sas yi nga xam ne moom la ñi bokk ci daayira joxe waaye la ñuy joxe ñu fexe ba di ci investir ci investissement bu lew boo xam ne bu dagan la am lu cay dolliku di mën a gën a dugg ci keesu daayira bi ñuy gën a mën a am doole lu mel ne wax waqf ku ne xam na ne lu am solo la waqf dégg naa déggoon naa ñu mel ne ñu mel ne Touba ci kanam ñu ngi doon xalaat mais waqf lu am solo la daayira boo xam ne mën ngaa dajale cent millions nga dem wut ci barab boo xam ne boo ko defaree ba defar ko weer wu jot mën na la génneel deux millions loolu mu yow sa cent millions nga fa te yaa ngi am yeneen deux millions yu yooyu am weer wu jot loolu boo ci barilee mën ngaa dem ba li membre yi joxe da nga dem ba li fu bii indi gën a bari ca waqf doon loo xam ne lislaama ko yoonal gis nga euh, Cheikh Mouhamad Mourtada radiyallahu taala anhu bëggoon na lool nit ñi xam ko moom moom moom ku liggéey ci wàllu ñu xam fu ndax wax waqf dafa am solo lool lool ci lislaam te ñu baree bari bàyyiwuñ ko xel te moom da day yokk ci li nga doon def rek du tee ñuy joxe addiya ah du tee ñuy sase mais day am loo xam ne moom dafay nekk moom di jur di jur ci anam gu lew gu dagan waaw maanaam kon jàpp naa ne ma muxaddamatul xidma ku leen jàppale woon ñu dem ba Sandaga wala feneen ñu am fa benn complexe ah, wala centre commercial li ñuy dépensé lépp ci koor geeg lépp mën na faa jóge kon seen membre yi nga xam ne ñu bari ñoo man ay jàngalekat lañ ñooy góorgóorlu di génne seen poos bu ñu amoon ay aw awqaaf loolu yaakaar naa ca yaakaar naa lu wërta jafe am na ñoo xam ne li ñuy def ci lu baax di dépense ay centaine de millions ngir bëgg bu ñu leen ko junjoon ñoo xam ne kat ku defoon waqf boo xam ne la cay jóge mooy mooy mooy financé ndogu yi xoolal lu góo jooju tuyaaba maanaam juree ñi ngi yaa ngi def lu baree baree bari ci ci ci ci ci ci ci boo defoon benn waqf boo xam ne yow koor gu jot rek dana man waqf ba bu ñu dajalee dafay génn ci at day mat 100 millions ñu ne kon mën naa couvrir lépp loo xam ne ay ndogu la xoolal xoolal li ñuy ndogu fii ñaata junni nit la yow nga ak kenn rek dogal kenn rek li ci nekk ci ci ci tuyaaba kon maanaam bari nañu ñu bëgg lu baax mais dafa am defukaay yu baax yoo xam ne yu jege la ba noppi ñu léeg-léeg di ko romb ca ca waaw kon maanaam daayir yu mag yi jàmm wàllu investissement waaw boo gisee entreprise boo xam ne buy dox la ca la muy liggéey lépp dagan lépp lew nga mën faa jënd ay action yoo xam ne action yee mën laa jural xaalis bu dul jeex at mu jot nga am ca nangam ah. loolu duñ ko xalaat mais mënoon naa nekk waaw daayira bu mën a dajale 500 millions ab ab ab entreprise di jaay ay action nga dem 500 millions yi nga jënd ko ay action loolu mën na laa jural at mu jot du jeex waaw waaye loolu nag day laaj nga am ñoo xam ne dañuy seen xam day màcc ci wàllu finance ñu xool fi ñu lay dugalal sax alal na doon foo xam ne fu dëppoog lislaam lay doon foo xam ne dara ci ci ci ci ci du ca nekk waaw su fekkoon ne rek masalan ilaa tubaab yi amoon nañ ci ay action ku ci ay action maanaam fi ne da ngay tëdd rek ah, fi ne li gars yi naan toog muy dox lu mën a am la <laughs> lu mën a am la boo jëloon un milliard def ko fi barab la lay génneel yow mën ngaa toog loola yow ah ndax dëgg dëgg dëgg dëgg xaalis day am àgg foo xam ne xaalis bi yaa ngi koy def moom mooy liggéey léegi dooy mooy liggéey loolu yëpp it damay wax ne daayira yi war nañ ci xalaat daal dayre yu mag yi nga xam ne mën nañoo am ay capitaux au lieu que ñuy dajale wax su nekk suñ bëggee dara dajale def ko ca léegi nañuy dajale def ko fuy génnewaat xaalis ci anam gu dagan mooy waqfu ci la bokk ak ak ak ak ak yu mel ne investissement ci yenn entreprise yi nga xam ne wala yow sax nga créer sa bopp ay entreprise waaw fi ne ab daayira waroon naa xalaat defal entreprise boo xam ne même membre daayira bi ci amul liggéey mën nañ fay liggéey léegi yaa ngi créer ay emploi yaa ngi am bénéfice waaw ña li ci topp ci wàllu mbirum alal jiit mooy di am budget waaw daayir yu ci bare bari moom am nañ sànke nanga may liggéey sànke bi nanga ma koy financé maanaam am nañ projet nanga may financé projet waaye nag daayira bi lii ko war a doxal ci at mi nga xam ne fonctionnement bi da ciy bu dugg loolu bariwul suñu daayira maanaam ndax daayira bi ki ci nekk di war a paas dem dakaar ñëw kooku war naa am budget kii war a téléphoné war naa am budget waaye ñi bokk ci daayira yi ñu jox la ñu ñu ñu sant leen ab liggéey ci seen poos la ñuy defee liggéey boobu te loolu mën nañoo dem nag bu baree ba bari moo tax nga nga nga ab ndaw kunda nga dénk ko liggéey mu laaj xaalis amu ko waaye rus naa wax ci daayira bi ne man lii mënuma koo doxal ndax lim laaj mënu ma ko mu toog ci suqam rek bu ñu wootee réunion du ñëw te amul paas léegi ca da ca waroon nañ daayira bi waroon naa mën a am man-manu kuy ñëw fa ngay moo lay jox paas nga ñëw. yooyu yëpp mooy li ko waral mooy daayira yi amuñu budget de fonctionnement maanaam budget boo xam dañ naan euh, ba du ma yëpp li may wax nag damay wax rek waaye xam naa ne bari na daayira yoo xam ne weesu nañ fi may waxee waaye dafa bari yoo xam ne it àgguñu fa moo tax dañ koy wax noonu waaye tekkiwul ne kenn defu yaakaar naa am na ñoo xam ne ñoo ñu ñoo gën avancé ci yu baree bari sax waaw waaye du ma du ma bëgg na ñii ñu ngi koy def ñii duñ ko defu waaye damay wax li ñu war a def ka ko deful jéem koo def li ma yaakaar boog ne moom la ñu war a def ka ko deful jéem koo def ñàkk a defoon xam ne loolu ñuy def dañ ko war a dooleel kon mooy di am budget lu baax la ci ab daayira budget fonctionnement ñoo xam ne kat daayira bi lii la war a doxee waaw duñ ne rek daayira bi soxla naa defar ay ndogu nangam la waaye daayira bi bu dee defar ndogu maanaam ñay saytu ndogu ya lañ ca war a dépenser ci xaalis ñooñu nañ leen ko bu dee daayira boo xam ne da ngaa war a organiser ay jàng wala nangam nangam wala lu ne rek lam laaj ci alal nañ ko ñett la ca la ca topp ci mbiru alal yi mooy daayira it ñu fexe ba transparence di mën a am ca ña ñuy saytoo alal ji loolu bunt bu xaw a jafe la ci daayira yi waaw te nit ki moom dafa bëgg alalam fa muy dem mu di ko xam li ñaax suñ suñ sembaaki ko doon wax de maanaam laaj luñ man di ko def ñu xam waaye ni ñuy saytoo nekk am safaafiya lu baax la te léegi yo war naa yomb ab daayira bu àggee ci benn dimension bi war naa mën a am site internet boo xam ne yow man su ma dugalee sama mille francs su ma xoolee site bi naa gis ne 1000 francs yi dugg loolu man naa am am nañu koy def ah loolu dana dana sawarloo ki nga xam ne ndax naa xam ne sama million bi may dugal su ma ko dugalee rek ko gis ca bu génnee danaa xam ne génn loolu mën naa am am na logiciel yu koy def loolu ca ginnaaw li li nga ñëpp ko moom kenn moomu ko loolu war naa mën a am lii ñëw kenn moomu ko kon war loolu war naa mën a am kon dama jàpp ne gérer alali daayira yi ci anam ku am transparence loolu war naa mën a am rawatina ñu nekk ci jamonoy technologie bi kon xëy na la war a jéem ma daaneel ndax waxtu wi defe naa sëñ jeex na côté wàllu organisationnel maanaam wàllu organisation yi défi yi ci am euh, ñu war a bàyyi war ko bàyyi xel am na lu ma ci junj sànq ci ginnaaw waaye dafa am lu lu ma lu ma yitteel loo xam ne lu war a mën a am la gis nañ ne daayira yi complémentarité bi ñu war a mën a am dafa am solo gis nañ màggal gi bu ñëwee ca loolu damay wax ne Cheikh Cheikh Mountakha hafizahullahu wa taala wa aydoon mu ngi ciy joxe ay junju maanaam bëgg ñu institutionnaliser bëgg ñuy am complémentarité gis na liggéey yu bari day boo ñaari daayira boole leen joxe naa ci misaal ci al majlisul a'la li shu'uni masajid dane dafa sëñ sëñ sëñ Afia ak sëñ Ahmad Badawi da woo ne leen dañ ko taxawal kon mu ngi leen boole ñu war a ànd liggéeyu xa xas li ma doon wax léegi ci xaside yi dafa woo sëñ Youssou Diop ak sëñ Ahma ne nañ ko ànd liggéey boobu kon mi ngi wane daayira yi ni ñu war a ànde gis nañ màggal bu ñëwee ni ñuy ànd ci anam gu rafet mu xaddamatul xidma boo xa boo kër sëñ Tuubaa ji dafa rafet misaal boobu mu xaddamatul xidma mooy dalal gan am daayira def naa wilaaya mooy yor togg yi euh, rawdu rayaahiin yor conférence yi isbu tarxiya yor gan ñi ak ak togg yeeg yooyu am na daal nu ñu koy organiser nu rafet noo xam ne màggal gi day jaar yoon lépp jaar yoon waaw loolu lu tax bu màggal gi jàllee rek mu am foofu ci màggal war nañoo mën a am benn cadre boo xam ne mooy fédéré waxuma mu fédéré mu nekk fédéré waaye mooy coordonné daayiri yu mag yi di xool yi nga xam ne war nañ ko mën a bokk gis nañ Covid bi liggéey yu am solo am na ci ay ay ay ay jàppalante loolu damaa jàpp ne lu war a lu lu ñu war a nos la mu am kuréel goo xam ne war naa mën a ëmb war naa mën a taxawee loolu kuréel goo xam ne dañ koy taxaw dañ koy taxawal nga xam day taxawu sëñ bi ci wàllu coordonné liggéeyu daayira lu teg ku nekk am autonomie di tax na ngay doxe mais mu am yoo xam ne dañ koy war a mën a bokk kuréel googu lay doon ay liggéeyam mooy mooy jàngat anam yi nga xam ne ci la daayira yi war a jàppalante bu jafe-jafe amee bu yëpp war a bokk comme Covid bi fi amoon kenn ku nekk taxawaay ba nga ca war a am moom mooy coordonné lu mel noonu bu màggal ñëwee wala xew-xew bu mag kenn ku nekk tax fa nga war a féete moom mooy coordonné loolu ndax nga xam ne duggante du am fi ne am na daayira yoo xam ne dañuy nekk fii nekk fii te am na mënoon nañoo nekk fenn beneen daayira nekk feneen di def loola même chose waaye euh, léeg-léeg léeg-léeg ci biir ci barab bii rek màggal wala dara xew. daayira bi kuréel fii daayira bi kuréel fii daayira bi kuréel fii daayira bi di conférence fii daayira maanaam yëf yi nga xam ne léeg-léeg doo mën a xam yow sax euh, dégg gu leer du mën a am te am na ñu ko doon organisé daayira bi day féete fii def lii beneen daayira bi def lee beneen daayira bi def gën a nosu loolu mën a am genn kuréel ko moo ko man genn kuréel goo xam ne euh, mooy war a xool kenn ku nekk fa nga war a mën a nekk lépp gën a am ak nosu ba tey kuréel googu moo war naa mën a am li ñu naan base de données ci dayre yëpp daayir bu nekk mu xam la maanaam fam ma ne lam am ci ay jumtukaay nga xam ne moom du doon lu muy tasaare waaye lu muy am la daayira sàngam soxla nangam daayira sàngam am na ko daayira sàngam mën na koo jox daayira sàngam mi ngi def nangam beneen daayira am na lu mu ca mën a taxawe yooyu yëpp mu doon ay liggéey yoo xam ne euh, lu am solo la kuréel googu mën nay xalaat ci ëllëgu daayira yi gën leen a orienté gën leen a jàppale di xool défi yi ak naka lañ koy naka lañ koy jéggee loolu am na ab xalaat kuréel bu mel noonu sax boo xam ne doon nañ ko xalaat taxawal ko waaye dafa mel ne mujjul mujjul mujjul antu waaye lu am solo la te alhimma laal yi defe naa sax la ko Seex Mamadou Mountakha tudde woon waaye defe naa taxul euh, nam war a taxawee mu taxawee ni kon li may mujje mooy wàllu wàllu communication dañoo toll jamono yu communication mais communication dafa doon loo xam dañ ko war a xalaat nas ko mu am politique bu leer nga organisé ñun dañuy communiquer mais communication bi léeg-léeg du du wu maanaam ku ne ngi communiquer ku ne ngi communiquer mais daayira bi da nga gis sax am nañ jumtukaay yu communiquer communication du am vision bu leer ak politique bu leer ba xam ne jeexit ji mu war a am ci nit ñi dana ko am day mujj sax euh, communication bi day mujj ëpp ci communication bu ëpp gars yi am na luñ ci am na luñ ciy wax <laughs> trop de communication tue la communication defe naa kon jàpp naa ne wàll googu daayira war nañu taxaw bu baax mooy communication ñi koy yor ñu tëralal leen feuille de route jox leen ay jubluwaay ne leen kat suñ communication ñun lii yee ko tax a jóg lii lañ ci war a sàmmoonteel ba mu xam ne ñi yor communication seen mission day leer kon ak it wax dëgg yàlla communication yi ñu waxtu nekk ñu di ko fexe ba di ko tëral ci njàngaleem Sëñ Tuubaa communication daayira yëpp. daay buy communiquer la ngay communiquer ci la ngay wax li ngay génne li ngay def ci ay conférence nga war a fexe ba mën a tënku ci li Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu jàngale kon yooyu yenn la rek ci ay défis yoo xam ne daayira yi mën nañ koo bàyyi xel ngir taxawaay yu am solo yi nga xam ne moom la ñuy taxaw gën a mën a yokk gën a mën a dolleeku kon loolu lañ doon indi ci xamle daayira nam sosoo ak ni mu évolué ak xeeti daayira yi waaye mission yi daayira yi ak taxawaayu daayira yi ak li nga xam ne nag war nañ ko bàyyi xel ngir ëllëgu daayira yi loolu rek lañ doon indi ci di jégglu bu baax a baax ci Sëriñ Asan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu suñuy bàkkaar nangu ñu suñuy koor di ñaan suñu borom mu sàmmal ñu suñuy kilifa yàggal fi Cheikh mu Mountakha di ko ñaan mu def jàmm ci réew mi yaakaar yi am ci réew mi yàlla bu mu tas yàlla réew mi jëm ci kanam euh, jàmm am fi xéewal am fi euh, gën a jub gën a tegu ci yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci waxtaan wu am solo bi tomb bi ni ko indee xëy na jekk di ci waxaat dara xëy na doon na loo xamante ne bi day yàqaat day mel ne dañuy fàttali mbokk yi nga xam ne ñoo téewu doon waxtaan wi ci tàmbali bi ni nga xam ne noonu la sëñ bi tërale woon waxtaan wi day mel ni wax nañ ko ci tàmbali bi xamle na sosug daayira fan la daayira sosoo dikk na itam ci ni daayira di doxe ak xeeti daayira yi am ak taxawaayu daayira ci boppam ban taxawaay la daayira war a am ak défi yi nga xam ne moo taxaw ngir gàllankoor daayira yi day mel ne daayira doonul loo xam ne sëñ bi daa tuddoon ne daayira war naa am waaye ni mu tënkee murit gi rek day mel ne daayira lu lu war a am la buñ ko seetloo ni ko sëñ bi waxee ci biir waxtaan wi day mel ne daayira moom lu mën te ñàkk la ndaxte ginnaaw sëñ bi moom ñaan na suñ borom subhaanahu wa ngir mu booleel ko murit yi yow yàlla yàlla nag ma defal jaalil muridina maan fi xesnikal xasir yàlla na nga leen boole ci sa kaaraage gi waaye lu mu ca mujje wa samla ijmaa na nanga boole seen biir nanga leen boole ci ab liggéey te loolu mooy daanaka daayira rek ndax bu fekkente ne daayira ni ko sëñ bi waxee eh, ci biir waxtaan wi ay mahamam muy ay taxawaayam la ca jiitu mooy ab jumtukaay la ngir tazkiya ngir sellal roo waaye itam ngir yar nit ki waaye itam ngir encadrer ko ak jàngal ko day mel ni yooyu mënu caa ba tey itam daayira ab jumtukaay la ngir dimbalante ca yooyu yëpp sëñ bi buñ xoolee ci biir mbindam day ñaan ñaan yoo xamante ne bi yàlla daa bëgg mu defal ko ak njabootam kon loolu day wone ne dayira lu mënta ñàkk ci yoon wi ba it bokk na ci liggéey yi daayira di def muy tasaare walla ñoŋal njàngalem sëriñ bi patrimoine bi nga xam ne mooy patrimoine murit daayire yi bokk na ci li seen liggéey mooy ñu mën koo tasaare waaye sàmm ko ba nga xam ne ak yàqu du ci dugg li fi sëñ bàyyi ñu sàmm ko ci am bindam am na daayira yoo xamante ne bi ci loolu la ñuy taxaw sëñ bi joxe na ci ay misaal yu bare bare waaye itam daayira dafa doon loo xamante ne bi day dox ci aspect économie waaye ci social yitam da ca war a dox sëñ bi joxe na ay misaal ci dayre yi yu baree bari ci liggéey bu mel noonu li mujj nag muy defi yi nga xam ne moom la daayira yi am defi yooyu itam warees na ko bàyyi xel bokk na ca teg yoon wu leer bala ñoo tàmbali yoon wu leer woo xamante ni bii dañ naan daayira moom lii la bëgg lii la bëgg a def fii la bëgg egg lii mooy jubluwaayam day mel ne loolu nag léeg-léeg xëy na sëñ bi juñ na ko waaye day manqué ndax ku xamut fa nga jëm xëy na mën nga faa mën ngaa bañ a gaaw a yegg de mën ngaa yegg waaye mën ngaa bañ a gaaw a yegg nag waaw kon jubluwaay bi da doon lu am solo waaye itam na ci défi yooyu muy organisation dañoo war a organiser wu ba xam li ñuy def ak nañ koy defee ba tey itam bokk na ci nit ñi ñuy jël ngir defloo leen nit ñi bokk ci daayira yi ñu xool leen bu baax a baax ak capacité yi kenn ku nekk la nga man ak kenn ku nekk la nga war a def xam ne nag am na ci yoo xamante ne bi daa am ñu ko man kenn ku nekk la nga man ñu jox kenn ku nekk la nga man bokk na ci yooyu naka la ñuy saytoo wàllu financement ci sëñ bi indi ci ay gàllankoor yu baree bari yoo xamante ne bi day dox diggante ak daayira bi mën a dox andi na ko ci bu baax a baax kon yooyu itam dañ ko war a bàyyi xel waaye itam lu jëm ci wàllu communication wax na ci moom la mujjee kon daayira daal buñ mënee tënk dañ naan mënta ñàkk ci yoon wi doon na loo xam ne mënta ñàkk ndax boo xoolee ni yoon wi di doxe rek lu fi sotti daanaka mën naa ne la la ca ëpp daayira yi ñoo ko sottal moo xam ci biir réew mi lañ nekk wala bitim réew mën nañ cee joxe misaal ci fajukaay bi gën a mag ci Touba bi fi gënoon a mag ab daayira moo ko fi taxawaloon mën nañ cee joxe misaal ci Touba ci kanam liggéey yi ñuy def ci biir dëkk bi liggéey yu am solo la te ab daayira lañ mën nañ cee joxe misaal ci Rawdu Rayaahiin njàngaleem sëñ bi ñuy tasaaree ak mbind mi Hizbut Tarqiyyah yeneen daayira yu yu daayira bitim réew yi ni ñuy participer ci développement yoon wi ak financement yi nga xam ne yooyu yoon wi da koo soxla loolu di am solo yoo xamante ne bi day rek moo ko mën a taxawee te loolu wone na ne sëñ bi moom ak ñaanam nangu na yàlla nangu na ak ñaanam la ca des rek mooy ñi yor daayira yi jéem a góorlu bu baax a baax euh, teg fa nga xamante ne bi moom la sëñ bi bëgg ñu teg fa suñuy tànk waaw li taxoon a jóg daayira ka ko sosoon ba ni mu yegsi fii ba ni mu yegsee fii xëy na loolu daal mooy li nga xam ne bëggoon nañ ko cee yokk ñuy sant sëñ Sam bu baax ci leeral gi day mel ne daayira bu nekk moom war ngaa déglu waxtaan wii war nga koo teg teg say membre ñu déglu ko bu membre yëpp mënta dajat waa biro ba moom war nañoo daje mën koo déglu bu ko defee ñu mën caa jariñ waaw kon waxtaan wi waxtaan wu am solo la ñuy sant sëñ Sam bu baax Euh, di ñaan suñu borom mu defal ko tawféex te yokk xam-xamam euh, li mu bëgg ci liggéeyal Serigne Touba euh, suñu borom defal ko kàttan koo xamante ne bii dina ko man kon ñuy wax ne suba ak jàmm incha allah am na waxtaan wu ñu fi war a def muy amalul mar'a wa dawaabituhu shar'iyya muy liggéeyu jigéen ak tënk-tënk yi nga xam ne moo ko tënk ci sariya Serigne Khadim Sylla moo koy def docteur. ñuy fàttalee leen itam képp koo xam ne am nga ab laaj boo xam ne da nga koy laaj ci fattuwaay yi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci jumaa ji mën nga ko envoyé ci numéro bi 78 689 28 28 78 689 28 28 wa fil xitaam euh, nusallim euh, ixwaanana yi misriyin alladina jaa'u wa naqulu lakum ahlan wa sahlan nuraxib bikum fi rixaabi almasjid xayaakumullah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi